Eh, jërë ngeen jëf suñu mbokku internet Dakar People yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar eh, di leen jaajëfal di leen baalu àq di leen baal àq di nuyu suñu mbokk yi ñuy bàyyi xel duñu suivre saa su nekk rek mbégte la ñu am suñu waree jàkkaarloo yéen ci chaîne bi ngeen Dakar People comme ni ñu koy defee rek à chaque fois spécial lamb tey na ñu ngi fi nga xamante ne mooy école de Samb eh, ndax ko xam-xam ne macha allah la ci école de lutte Balla Gaye nee naa la moo fiy njëkk mbër yi moo fiy mujj mbër ndax bon xoolee sànq nekku na ci li nga xamante ne mooy wàllum sesetal bi ndax ku ne xam na ne moom it bëggul dara lu tax nekk écurie Balla Gaye muy jàmbaar nag macha allah tam ñu dalal ko ci spécial am na waxtaan ak moom lu baree bari koy liggéey wala moo koy teg xale yi dama koy nuyu suñ papa Père Mbaye Samb euh, jox ko mu nuyoo après ñu woy li nga xamante ni mooy waxtaan papa. papa maa ngi lay nuyu. waaw ñu ñu lay fay. di sant. Mm-hmm. di ñaanal yàlla yokk taxawaay eh, seen liggéey yàlla yokk taxawaay yi. allahumma waaw ci barke yonent bi. Mm-hmm. waaw waaw moom ñu ngi nuyu amateur yu làmb yëpp. ndeysaan ak ñi nga xam ni ñooy supporteru école de lutte bi. Mm-hmm. waaw ñu nga ñu ngi góor góorgóorlu. di ñu gën a jàppale ci problème wàllu école bi. ndeysaan uh-huh. parce que liggéeyu mbooloo. moom moo gën liggéeyu kenn. dëgg la li nga xam ne nag moom lañu ñu jëloon. pour jéem ko def ci école bi. Mhm. vraiment ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kàttan. Mhm. di lancer appel à mhm. tous les jeunes de Guédiawaye. ñu def seen participation. parce que école bi fi mu ne commencé nañu am ay problèmes yoo xam ne yi. vraiment ñun ñoo ko war a defar. ndeysaan tu vois. war nañu bon xëy dañu bëri ay tout tànk. yoo xam ni combat yi ñuy bëri. daanaka nekkul. combat boo xam ne bii ñoom war nañ ci mën a génne xaalis bu ñu war a mën a jënde ciment. ndeysaan wala muy béton yooyu. bon mairie yi commencé naa def ay fichier ak mhm, yooyu mhm. bon vraiment ñu mhm. bëggoon bon ndimbal waaw vraiment li nga xam ne moom la ñu jot am nag ci kees gi fi mu ne moom la ñuy jéem a jël pour jéem defar école bi defar école bi waaw uh-huh. même classe yi am na ci ay miir yoo xam ni. gis nga comme miir yi nii waaw ndeysaan yëpp ñu ngi commencé uh-huh, uh-huh, te comme école la ñu yor ndeysaan eh, vraiment yor nañu ay xale yoo xam ne ouvrier yu complet ñoo fi nekk. am mhm. nañu ay menuisier métallique. Mhm. am nañu ay maçon. Mhm. carreleur soudeur. ñëpp métier yu bari ñu ngi fi. waaw comme terrain basket bi. terrain basket bi waaw waaw. boo yi entraîné fii y a des élèves yoo xam ne uh-huh. nii bon waa ji leen di poursuivre. mu nekk koo xam ne kii ku baax la aussi. former ay nit. dëgg la dem nañu bu nekk à l'extérieur vraiment di def seen participation. ki nga xam ne kii mooy le maire de la ville de Guédiawaye. muy ay dara même moom fi la jàngee école. ndeysaan fi la jàngee uh-huh. vraiment moom it di def participation. Uh-huh. waaw mais moom it ñu ngi koy lancer appel. Mhm. moom it mu gëstuñu. ndeysaan surtout waaw parce que ah. man moom li nga xam ne mooy sama. Euh, uh-huh. wàll ci sama li nga xam ne moom laa koy wax rek mooy. ay ay ay ay ñaari ñaari. yoo xam ne mhm. danaa ci mën a def. Mhm. Mhm. mbalit mi. mën ko dajale bu oto bi ñëwee njël ko ci sotti. ndeysaan ak dix sacs ciment rek moom laa bëgg. ay ayca am na solo defal leen ko loolu dix sac ciment la bëgg pour mu mën a defal li nga xam mooy fichier yi génn euh, ndax boo xoolee école bi dafa yàgg macha allah mais depuis loolu moom it mi ngi ci euh, di bay waara muy suñu papa père Mbaye Samb ayca papa. Euh, bu ñu jugee la ngeen di def ñaari sorties yu am solo ngeen bëri samedi bëri dimanche ki nga xam ne mooy Thia Daouda Fall. bëri woon na keroog samedi moom ak Pam Doy combat bi ndax ngeen préparé keroog Thia waaw combat bi on l'a bien préparé. Mhm. vraiment xale bi nekk xale bu am yar. xale bu neex a waxal. Mhm. loo ko wax. Mhm. vraiment da koy jël jàpp ko. ndeysaan. E, sigil na nag li nga xam ne ni mooy école de lutte bi. ak yeneen booy fi jaar mel ne ay e, fiis jaw ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu. vraiment am nañ fi ay booy yoo xam ne ils ont fait des combats yoo xam ne c'est très spécial. dëgg la man li mu leen di yokk wax rek mooy. problème mu mbër. si toutefois nga nekk ci école wala nga nekk ci écrit ndeysaan lii sa wàll mm-hmm. ci wàllu problème mu làmb mm-hmm. mooy sa entraînement contact na ci bari dëgg la mais booy yu bëri dañu am ñaari combat ñetti combat bëgg yóbbu seen bopp ci plafond boo xam ne bi egguñu fa dëgg la waaw mm-hmm. mbër moom dafa war a bëri les footballeurs gis nga danañ def physique. mais mhm. seen kii ci bëri. Mhm. il faut ñuy entraîner ak bal bi. ndeysaan mhm. mais boo dee daw rek topp gannus bi di daw. di wut ay cuisse ay kii ñëw indi làmb ja volume. te tekkoo fa dara. dañu naan acim. ndeysaan te làmb léegi wuti nag làmb bu njëkk. vraiment. lu toll ne sa koñ. ñëpp ñëw ànd ak yow. dëgg la dara la nga ñëw bëre. ñàkk ko xëj ne yàlla mooy may ndam. waaw mais nag nit ki war da mën a def effort ba. combat bi du war a mën a yomb comme ni mu war a yomb ni yombee yombee quoi uh-huh. vraiment ñun moom mm-hmm. xale yi vraiment ci problème yooyu lañ leen di tàggal mm-hmm. waaw di leen xamal xamal ñoom ñëpp ku ci mm-hmm. amati combat wala nga ñàkk am combat paaka da nga koy daas fanaanal nga xam ne buñ la duñ la bett mukk bu ñu nee ne la dimanche bii ngay bëre sax doo rejeté combat da nga naan indi leen da fekk am nga condition physique ba pare mais di dem géej à tout moment lundi mardi ba vendredi yaa ngi dem géej. Mhm. te yow li ngay travailler boo sumee ko takk ngeen boo bëree quinze minutes. Mhm. commencé xiixat. Mhm. entraînement amul benn. waaw ah, papa micro bi waaw. Uh-huh. jërëjëf. Uh-huh. ay ca papa euh, des fois dañuy gis euh, bi am na fi quoi ndax dañuy gis des fois. mbër day am combat ñëw préparé préparé bëri su ba pare dina toogaat lu mat mois wala trois mois du doog a ñëwaat ci li nga xam mooy école bi. waaw bëri na fi nag. Euh, fi mu ne actuellement man diiran bi ma ñëwee ba léegi. Mm. man loolu damay wax ak ñoom ne leen di leen éviter loolu. Mm-hmm. xëy na mbër bu bëree ba pare. Mm-hmm. am na foo xam ne fii dafa demoon ñaan lu ji. Mm-hmm, ay waajuram yóbbu ko. mu dem ñaan lu ji. war na fa dem bon taxaw. gërëm leen. ak yooyu bon mën a jël ay yenn càngatam ak yooyu. dëgg la mais bu loolu weesoo. Mhm. bu ñu fa jógee dañuy ñëw di entraîner convenablement comme ni ñu doon entraîner. Mhm. waaw. Mhm. waaw mais loolu moom bëri na ci booy waxuma ci école de lutte bi rek mais écrit yëpp. écrit yëpp la nga uh-huh. gis mbër mu am victoire. ne da ngay sa victoire te yooyu c'est pas la de fi xale yi amu ci kenn ku ci eggagum plafond. boo xam ne bii. war ngaa mën a toog ne da ngay noppalu ko. war ngay entraîner matin midi soir. trois fois par jour. boo hmm. demee ba wutuloo métier hmm. làmb nga opté wu. ndeysaan boo xëyee six heures du matin. war nga dawi. Hmm. travail mouvement étiré wu. boo ñëw sax mën ngaa dox. boo ñëwee récupérer sangu ba set. toog ba onze heures et demi. boo dem salle musculation nga dem salle musculation. boo entraîné ba midi et demi nga génn. boo génnee dem récupérer. sangu. tëdd récupérer bu añ jotee nga añ. boo añee ba pare fu cinq jotee mhm. na la fekk nga jël sa saak def ci sër bi ngay ngebo boo ñëwee ci saal bi nag nga mhm. takk sa sër mu dëgër mhm. commencé trottiné travaillé nga suba gi say muscle taxaw na boo ñëwee étirement rek nga ngay def dix personnes sax boo ko amee mën ngay bëri ñoom. dëgg la boo toogoon ba ñëw ne la suba. Mhm. la ñu bëgg combat. Mhm. laajal xaalis dem bëri. dëgg la yàlla lay suturaal dëgg la uh-huh. waaw. Uh-huh. parce que lu nit ki moom lu mu liggéey rek moom lay fay. Mhm. waaw man ndeysaan loolu laay uh-huh. uh, kii xale yi. loolu ngay gën a soññu xale yi rek. am na solo moo tax kenn gis nañ ki nga xamante mooy Thiat Daado Fall ni ñëwee ni mu bëree keroog Pam papa. waaw waaw waaw bëre sa jëkkër gëri na <coughs> bëre bu ama am solo ñëw tante action muy du jàll muy tante di tante ba yàlla may ko ndam keroog kenn ni bëre yéena ko entraîné wala waaw dañ ko entraîné loolu parce que da doon bëre fii action yooyu ma ne ko problème mu làmb toutefois nga nekk ku dafa am loo xam ne war ngeen ko xool ci les anciens dëgg la ku mel ne Balla Gaye numéro deux ñi mu daan ñu bëri ñoo ko mën mais dafa am euh, pression bu mu doon bëree. dëgg la mun a mën ko te man dama ko doon xool ci làmb. Mm-hmm, moo mm-hmm. tax ma ne. Mm-hmm. ndaanaan la. benn rek la échoué. te ñooñu dañ koo jàng parce que yaa a des cadres là-bas. dëgg la muy combat ak Moustapha Gueye. waaw waaw <laughs> <laughs> parce que. waa Fass dañu ngemb uh-huh. ki nga xam ne mooy Boy Kayre uh-huh, uh-huh. tegal ko paa yi nga xam ne moom la Balla Beye di def ci doigt reculer trois fois. Mhm. arrière. Mhm. micro bu ñëwee nga mhm. teg ko. tegal ko tànk bu nga mën a enchaîner mbot. mais dafa def deux pas taxaw xaar. Euh, sawaay ñëw sawaay ñëw waaw bëgg mbot. mu bootu ci ginnaawam kay rek dëpp ci saako. bi mu ko defee Tafa gis nga dafa touché Tafa. Tafa da ko touché rek. Mm-hmm. def recul. Mm-hmm. trois pas arrière. Mm-hmm. mu rek daf ko téye rek ba tax affaire bi yomb. boo ko xoolee archive bi. waaw waaw waaw waaw ndeysaan. mais uh-huh. Balla nekk koo xam ne ki champion la. moo tax ma ne booy yi. boo nekkee taille courte. c'est rien à voir ak bëri ak koo xam ne kii moom moo la suturaloon. dëgg la uh-huh. waaw. parce que nit ki bu fekkente ne da ngeen a taxaw. arbitre nga dugg ci gardam rek. dootul mën a am. dëgg la xam nga la. Mm-hmm. réflexe bu mu la mën a dóoree. Mm-hmm, mm-hmm. c' est ça le problème. ndax keroog papa ñu ba doon wax naan euh, Thiat Daouda Fall peut être poids bi nga xamante ne Pam Ndoye am na ko mën na ko sonal ci biir làmb ji mais gis nañ keroog euh, lu pap euh, li nga xam lu lu lu Pam Ndoye lar rek moom mu laal mu mel ne poids bi sonalu ko keroog ci biir ci biir làmb ji. xam nga mooy li ma expliqué ci problème mu xale yi rek. gis nga pois bu bëri. ak forme bu rëy. la. amul importance ci mm-hmm, làmb mm-hmm. ku la ëpp lu mu contact Pape mm-hmm. Ndoye nag cuunewul waaw ndaanaan la de champion la ndaanaan dëgg la xanaa xamoo Pape Ndoye moo gën a nekk ci man man man moo gën a nekk mbër lagros hmm? combat combat lagros bi sarax la bu lagros bi baax jàll non sarax la <laughs> lu sarax la papa <laughs> xam naa li ma la wax euh, on est des gens lu tax nga sarax la ay ancien lañu xam nañu ni mu demee waaw yéen ay ancien ngeen moom xam ngeen ni mu demee de <laughs> Pape Ndoye laa gën a ragal uh-huh. Pape Ndoye laa gën a ragal ndeysaan waaw Lat. Mm-hmm. c'est que def na parcours def carrière. Mm-hmm. dafa dem ba ci biir xaw am retard. moom Lac de Guiers moom kii euh, Lac Rose. Lac Rose booy dab ko. ok xamoo la. Mm-hmm. waaw waxuma ko pour sabotage. wala pour lenn. mais mbër champion la. waaw dafa amoon avantage boo xam ni ci mm, làmb mm-hmm. heure waroon na ko fekk mu dépassé fii. moom Lac Rose waaye. Mm. mais booy mooy li ma wax rek. est-ce que kon papa dafa tardé ci làmb su ma la déggee dafa tardé. parce euh, ñoom Ama da ko dab. waaw Jackson daf ko dab parce que problème mu làmb mel mm-hmm. mm-hmm. ñoom maase ci làmb. de ñoo fekkante de man. Mhm. sama premier combat ak ki nga xam ne kii euh, sama combat bi mu doon bëri langsaan. ah waaw. boobu moom moo doon premier combat. Mhm. sama combat bi moo doon bëri ak kan Moustapha Gueye xawma kan. Mhm. ci la Bombardier bëri. waaw premier combat. waaw <laughs> kon xam ne dara yàggul. dara yàggul dabante bi mu demee ba ne day bàyyi làmb. Uh-huh. dafa ne man je préfère bëri ak mbay Samb. Uh-huh. parce que man. bi mooy door jug làmb mhm. Mbaye Samb bëre grand combat bi ma ànd ak Balla Gaye mu nekk lu ndaw <laughs> ndeysaan bu école de bi ah, ah, ñu ànd bi ñu demee ba làmb ja ah. ñu dugg si Bombardier dugg si ak Faaru Mbaam mu xol ko ni ma lëy am nga problème <laughs> ma ne ko problème lan mu ne ma kii kii kii ngay bëril ma ne kii laay bëril kii mooy Bombardier mu ree mu ree daal di la ma kii am na doole de ma ne ko dama koy daan <laughs> mu xool ma ba mu yàgg tourné daal di ree sëgg. daal di jékki-jékki arrière. man daal ah. dama jékki-jékki sawaay na ma geesul booy. ma mm. geesu gis ko mu ànd ak boobu di. <laughs> di photo ak moom. ay ah, ah. ca papa am na solo macha allah mais papa lan nga jàpp ne moo yàq combat euh, Jackson. nag ni mu bëree ban ban juum la def ci biir bëri bi. non problème mu combat la rek. Mm-hmm. parce que lamb nee naa dam yi la quoi. Mm-hmm. ñëpp dañuy yaakaaroon ne combat bi day ñëw yomb ci Jackson. waaw il a bien entraîné. Mhm. mais man bon li nga xam ne moom laa gis cong bi moo sori. Mm, song bee sori. song bi moo xaw a sori. ah ok ko juutu. Mhm. tu vois. kee mhm. am recul pas arrière. xëcc ko mu ñëw. ndeysaan waaw. parce que lak teewul bëre. dëgg la waaw teewul bëre. <laughs> Uh-huh. mais lay problème boo xoolee vis à vis problème mu corpulence yaramam ak yéem. waaw waaw waaw waaw. fa nga nit. moom Lac Rose dina jël yenn âge yi. Mhm. xam la. Mhm. pour dagg loolu mu dañ. Mhm. c'est tout à fait des man mii mun naa takk ngeen bu ko mbëri bëri de. waaw waaw xam nga la. mais bu ma simee ko bu ma xoolee ak sama nu mu tuddati sama sama euh, ndombal baatu biir ndom ndombay biir ndombay biir papa. <laughs> ndeysaan <laughs> mais dañu wax naan euh, Jackson bu fekkee côté xeex bi la mën na dominer ki nga xamante ne mooy Lac Rose ci xeex bi. mais dañu gis arbitre dafa ciblé Jackson. peut-être da ko sut la ronge gars yi dañu réere woon mbir. Mhm. Lac Rose tëwalul xeex. Mhm. bandi la de. waaw bandi la xeex. Uh-huh. booy fii ñu ci bëri ku ci yaakaar ne yaa mën Lac Rose da nax sa bopp. Mhm, tëlawul bëri. ndeysaan waaw. bakaareer la. ba pare bon <laughs> dafa yeewu. ndeysaan xam nga wala. fighting bu mu ko bëggoon indil moom moo dul yoon. parce que affaire bi dafa dëgguwul parce que indi na ko touché na ko. ñoom ñaar ñu touché wante encore booy bi touché waat ko mu daw fa mu ko jëlee nag moo sori dafa fekk kële teel koo gis. ok déclenché. Hmm. ba mu koy jël boobu fekk na sukk hmm. hmm. noonu la làmb ji demee. moo tax ma ne làmb. bon jeu la ñu dalal ko tey suñ papa Père Mbaye Samb moom dañuy faral di moom it mi ngi ko ci Dakar People. tey ñu fekk si ko fi nga xam Jackson doon na bëree nga xamante ne mooy Lac Rose Lac Rose am ndam ci kawam ñu koy félicité bu baax a baax Jackson moom ku ko xam-xam ne daanaan la champion bàyyi ko fi nga xam mooy écrit waalo euh, Thiat Daouda tamit aussi doon na fi bëri moom ak ki nga xam mooy Pape Ndoye ñu ngi koy bu baax moom it am na ndam ci kaw Pape Ndoye ay ca papa euh, hmm. buñ jógee ci loolu dañu fi nga xamante ne mooy prison ne six ans a gisee tey cas ak affaire bi fi toll ndox ñu bëri nee nañ euh, waaye géejawa dañ ko war na jàppale avant affaire bi di egsi fi non loolu du wax quoi mm-hmm. képp koo xam ne ki autorité nga dëkk géejawaay mm-hmm. wasuloo nga ci sa àq te li nga xam ne li moom moo am mooy comme li ma expliqué rek. Mhm. problème bi sa dépend ci de procureur. Mhm, mhm. il est le responsable. dëgg la waaw. Sénégal la ñu nekk nag. xëy na problème mu am na erreur bu am. ci moom. mu def ko. <laughs> te mentalité yi bokkul. la bon du question problème mu xale la wala lenn mais. niveau yi ñoo bokkul. dëgg la. waaw. bu fekkente ne sa jaar jaar. école. Mm-hmm. boo ci mësee jaar tamit yàggu fi. dëgg la xamoo la. Mm-hmm, yëkkati mm-hmm. amoo yenn connaissance. ak yenn nit ñi. ñu lay mën a yee ci yu bari. doo jóge ci ay problème erreur. xamoo la. waaw. et encore nit xamoo la. danay juum yenn saa sax ci. Euh, yenn langage yi. wax ko moo tax man ma problème bi. ça dépend sur procureur man li may wax nëbbu ma ko. Mhm. procureur. Mhm. bu ko neexoon suba ñu bàyyi la dëgër. Hmm? maa la wax lii. foo teg ne procureur bu neexoon suba ñu bàyyi la dëgër. waaw parce que dafa am nu mu waxee ak moom ci lu ma dégg. ah moom la dëgër dafa am nu mu waxee ak procureur. voilà ok. moom am na loolu rek. laa mhm. ne ah y a une erreur. est tax cas bi egsi waaw parce que lii problème bi mooy. tey jii. le bi nga xam ne bi moo am. a am na ci mbër yi ba tàyyi. Mhm. Mhm. comprendre mhm. mais loolu c'est arrangé. comprendre mais nit pour nga yeewu ci àdduna. il faut ngay euh, am collaboration. dëgg la ñi nga dëkkal. ak say am di jàmm. xam nga wala. ñëpp nga am ak ñoom collaboration. mais doo tëju yenn tëju. baaxul. mën na la indil ay noonu. Mhm. surtout ma problème ji nii mu demee. la boo xoolee ay kombaam. Mhm. xëy na lépp teg dañ ko ci yoon te c'est un grand champion. Mhm. daan ko ci boppam jafe moom ma ngay xalaat victoire am. wala defetam ëllëg lundi. parce que toujours loolu lay défendre. parce que Alioune Seye ci lool la ko tàggat. nit ki nag bu dee dañ ko tàggat ci loolu. gaa yi naan cuune la dafa ragal dafa def nii. non non loolu moom dama ci contre ci problème boobu. gaa yi dañuy wax man leen ko yor. te ba nu mu nekkee mais ñoom ñaar bokkuñu. dëgg la waaw Balla Gaye mi nga xam ni moom moo doon le directeur technique. Mm-hmm. li nga xam ne li moom la doon bëree. Mm-hmm. bëree war mm-hmm. a làmb moom la def ci Balla Gaye. Alioune li mu doon bëree moom la def ci la de Guiers. ndeysaan ku fekke woon ay combat démb ak bërki démb. màng combien de fois la bëri moom. Mhm. daan na màng mais màng mënutu koo daan. dem ba amateur dañ ko daan yuuxoo. Mhm, ndeysaan Alioune Seye gënoon la dëgër. ndeysaan wuu la ñu doon def. ndeysaan combat du tëj ci combat mu màng rek. Mhm, xamoo la. saa buy bëri jël loxo bi teg ko fii ci cuisam. sëgg wàcc. mbër ma day arrière. dëgg la te mu daan la ci loolu. ndeysaan noonu lay bëri yow ba ñu sifflé combat bi. mu jël ay butéelam ñu ñibbi. waaw ku mel noonu bu demee ba bàyyi làmb mm-hmm. man mi su may bëree su mm-hmm. ñëwee ci biir géew ba dara dara du sifflé mm-hmm. su ma ñëwee mun ne ma pare nga man ne ko waaw mu ne ma sentiroo dara ma ne ko ma dara dara méttiwu la ma ne ko déedéet mu ne lenn la ma laa xamal ma ne ko waaw mu ne ma na nga bëreel altine bëreelal say soppe ak say noonu na ko yàlla yërëm loolu la doon tàggat ñëpp même Balla Gaye mu mag nii bi muy bëre ak mànga loolu la ko wax sentiroo dara mu ne ko déedéet dëgg yëgoo dara mun na ko déedéet. mun mm-hmm. na ko bëreel altine bal mm-hmm, mm-hmm. Balla combat bi ko asoo la. ndeysaan <laughs> pourtant combat boobu Mbaye Gueye la Tigre de Fass. Uh-huh. bokkul écrit waalo. Uh-huh. dëgg mais xolam sax dafa sot. Mm-hmm. ndeysaan ma Balla Gaye di ko saaga ci bare yi. ndeysaan man sama wàll boobu dama mujj tourné di xool. <laughs> ndeysaan bu ko songo. Uh-huh. boo ko songee ma toj soog. Ah. bu ko songo. <laughs> ba bi mat si nii. ndeysaan tu vois. seen revanche bu mu amaatee. ci la sayer gaa ñu mànga Balla Gaye. butu ci demal nii nangam nangam. ba Balla ne ah bàyyi leen loolu du dara ndeysaan maa nga ñëw ndeysaan ak boobu ah. takk bi daal di ñëw daal di jaale Balla Gaye ci suba rek dem duggaat otom taal ay ca papa lan lan mën a xaar tey ci mbëru géejawaay ndax depuis loolu bu loolu amee ba tey uh-huh. euh, mbëru géejawaay tamit aussi gisuñu la def benn edd hmm. ñoom lan lañ lan la ñuy xaar ci mbëru géejawaay ñoom tamit ban ban côté ban côté lañu xam nga gars yi ni ñuy hmm. loo xam ne lii problème mu yoon la hmm. la war a def du ñu dem di xeex wala ñuy def yenn problème erreur yi mhm, mhm, lu ñu mën mooy problème mu wax ak ñaan mhm. xamuma la ñi nga xam ne ñoo féete ci problème mu wàllu yoon xamuma la am gën ci jege ñooñu ñoo mën a dem ñëpp ñaan xamoo la mais du waa Géejawaay man de bokku ma ci man moom je fais pas partie bokkuma ci ah non bokk ci problème yenn manifestation yi wala révolte yi je le fais pas bu dara man maa leen mag mën naa leen jur xamoo la am na yenn yoo xam ne nit mënu ma ci dugal waaw mhm. nit mënu ma ci dugal mhm. xëj na démb la woon ak bërki démb mhm. mais problème mu erreur yi yëpp di am ci problème yenn manifestation yi kan moo ko def mais ñi ci dugal seen bopp ñoo ko def xam nga la am na yéen yoo xam ne ay erreur la lii nag nekkul loo xam ne lii lu kii la man am naa benn frère boo xam ne bi kaam noonu la demee mais waa ji dafa daw pendant trois ans bi mu ñëwee la ko jox xaalisam booy bi actuellement ma nga Europe takk na jabar ba yóbbu ko ah def na plus de dix ans Europe wallahi lal azim barke Cheikh Sadbu ah, ah yooyu yàgg naa am mhm. keneen kii mhm. sama doomu turandoo la c'est un ancien policier fa la woon moom da doon def tractation yu mel noonu mais cas bi bu mu demee ba am problème mu def ko koo xam ne ki sama rakku copain la musuma xam ne papaam lañu lañ ma tuddee mais moom bi problème bi amee gars yi di ki dafa sol dàllam ñëw ba kër ga. Mm-hmm. on parle parlé. mu expliqué. Mm-hmm. ma ne ko ah mu ne waaw ma ko amul problème. Mm-hmm. deful sax six mois. waa ji rendre ko xaalis bi mu ñëw. daal di may jox xaalis bi na ma vraiment maa ngi excusé wu. na ma problème bi dafa nekkoon loo xam ne lii. du woon yoon. Uh-huh. waa ji du toog. Uh-huh. moo tax waa ji demoon. xamoo la mais xaalis baa ngi nii enveloppe bi ñu ko defoon. bi ñu koy tekki dafa poussière. ndax fa mu ko jàncoon. xam nga la. Mhm. ma ne ko lii de lu wóor la ma ne ko waaye fan nga dëkk <laughs> mënuma parcelle. ma ne ko parcelle fan ma boo passé golf rek. Uh-huh. Euh, oto bi di tourner pour dugg parcelle. Uh-huh, uh-huh. jumaa jooj boo mhm. taxawee boo ne kër Alaaji Mbay Jaañ rek. Mhm. ma ne ko a ah, Alaaji Mbay Jaañ. mënuma un ancien policier. ma ne ko ah mënuma ma ne ko kooku de sama papa la man Mbay Jaañ laa tudd mënuma ah. ma ne ko moom lañ ma tuddee mu ree dama ma ne ko gis nga mbokk. mënuma nag problème yi ça arrive. tu na ma nag bon. yàlla baax na. Mm-hmm. comme yàlla def na ci sutur rek mm-hmm. alhamdulilah. Mm-hmm. mais dafa am yenn yoo xam ni. peut-être bu fekkente ne am na. nit mënul lulul négocier ak ñaan. du doole papa na problème problème mu xaalis la est-ce que jotul mbëru géejawaay dajale benn somme wala ñu këpp kees gi ñu yor. jël ko <clears throat> cotiser ko ñoom ñëpp teg ko ci table bi même bu fekkee benn somme la boo xam ne ah. peut bariwul jël ko teg ko ci table bi man de sama aqulaay taala la lay wax benn mbaru géejawaay yëkkati benn somme teg ko ci table bi non wóorugul parce que am na ñoo xam ne a feeñ uh-huh. Aziz Ndiaye dégguñ uh-huh. uh-huh. a a am na ñoo xam ne génn nañu une somme d'argent d'accord mën na nekk xamoo la. Mhm. du du borom 25 millions yi bekkaay yóbbu rek de. Mhm. xamoo la am na ñeneen ñu joxe. Mhm. Sadio Mané moom ci ñu njëkk joxe la bokk. dégg naa aussi am na ko joxe 10 millions te bëgguñu tudd turam bëgguñu bëgg turam. Uh-huh. xam nga yooyu yëpp. bon wax la quoi. moo tax man la xaalis bu matoon lépp. ma ci lu ma gàttal wax. sama wax. ma ne problème bi ça dépend sur le procureur. xamoo la parce que moom ci boppam moo yoru mbir yi. xam nga la la bu ko neexee problème yi bu demee ba mat. Mm-hmm. du tax mu bàyyi la dëgg. Mm-hmm. xam nga la dëgg bi ñaan la. moo tax ma ne loolu du xeex du xuloo. waaw ñaan la xam nga la uh-huh. du waa géej waaye ñoo war a jóg manifester wala léegi. Mm-hmm. c'est que gars yu bëri. dañuy wax te xamuñu li ñuy wax mooy lan dañu wax wax jaxase. xam nga la nit daal boo amee erreur. say nit ñëw nañu ñaan. ñëpp ñaan mm-hmm. mais mbër bu ne am nga fi problème ay Mansour Mbaye yëpp dañu doon def participation di wax Mansour mbay xëñ na mag la léegi mm-hmm. ah yàlla na yàlla fëgg boppam mag la wératul mm-hmm. bon vraiment il peut pas se mais ñooñu ñëpp dañu daan wasu seen àq ngir bëgg jàmm xam nga wala yii nag mën naa dal ku ne xam nga wala am na yeneen ak yeneen yoo xam ne fi xew na fi au temps de Habib Thiam <laughs> sama grand frère xam nga wala uh-huh. bi ñuy interdire problème le savre indien on a des attrapé des gens yoo xam ne yi seen bàyyi ay autorité lañu xam nga wala uh-huh. mais dañ leen proposé xaalis mu bañ on l'a affecté à Kolda ba nu mu demee retraite xam nga wala tu vois mhm. yoo gis xam nga la dafa am ñaan njëkk. waaw ñaan njëkk xam la mais du doole. du xeex mhm. du xuloo. Mhm. waaw adduna bi daal. lay problème bi mooy. nit ki na nga am masla ak ñi nga dëkkal. dëgg la waaw di communiquer ku mag. jox ko cër koo mag jox ko cër. waaw uh-huh. ñun ñëpp nag benn lañu. Uh-huh. ñoo bokk ndey ak baay. Uh-huh. di ñaan yàlla nag yàlla def ci sutura. ak jàmm ci barke yonent bi. waaw lépp lu ñu mën moom. ci wàllu ñaan daan ah, ko def waaw ñaan yàlla sunu borom bi ah borom kurusi di leen ñaan yàlla ah, seral mbir mi eh, di ñaan aussi tamit procureur ah, li nga xam ne li moom la teg sunu mm. doom ji di la dëgër et eh, vraiment mu mu mm-hmm. ko rek te yàlla tax waaw ci uh-huh. barke ay waajuram man dama ko ñaan ci barke ay waajuram waaw moom rek laa ko ñaan uh-huh, uh-huh, waaw man loolu mooy sama participation parce que moom la am aw ma million su ko amoon tey wallahi lal azim barke joxu ko kon ma joxe ko dëgg la mhm. Mhm. waaw ndeysaan waaye man li may ñaan mhm. li may ñaan rek mooy euh, moom mu xool euh, li nga xam ne li bon moom mooy moom mooy problème mu frère. waaw la mu jéggal ko rek te yàlla tax waaw wallaahi. waaw merci beaucoup papa kontaan nañ ñu ngi lay jaajëfal di la kontaanee. amiin ah, merci papa <laughs> jërëjëf ah, merci. bi ah, nag sonal na la xaw sa lan la. waa ji dafa dafa ragal li mu wóore day sóob rek kii. <laughs> da laa bëgg a dëkk <laughs> yii papa xam naa leen de bu la dëkkee de maa daa ñëwoon di ma dëkk. bu la dëkkee de maay bëre daa ñëwoon ma dëkk. ma ko demal demal nga dem bëri ji ak kële mu dem ma takk ko. ci la jëlee ndig. <laughs> <laughs> bu la dëkkee maay bëreeg moom bàyyi ma ma bëree bëreegi papa. papa bu la dëkkee bàyyi ma bëree bëreegi assumé naa samay responsabilité. <laughs> man moom xaaral rek. Ah. bi baa wu ñu poqe lay takkee caa yow xaaral ndeysaan eh ba sam papa ay ca kontaan nañu merci beaucoup <laughs> jërëjëf Père Mbaye Samb ñu ngi koy jaajëfal di ko kontaanee euh, di ñaanal suñu frère suñu xarit <laughs> Lac de Guiers numéro suñu borom génnee ko fa mu nekk ndax ku ne xam ne ne kaso ku ne yéene wu ko kenn macha allah mm. mbir mi nag ko mbiru ñu teg ko ci yoon rek yoon yoon dina dina dina yéwé na lépp macha allah ba mën a delluwaat si activité ndax ku ne yéene kenn daal li wax sànq rek ku ci nekk boo sañoon sa kër ngay naani ataay sa kër ngay añee sa kër ngay reeree mais nag euh, li faral di wax rek moom mbiru yoon bu taxawee rek euh, dañuy def lu dul ñaan ñaan la ñu mën di ko ñaanalaat bu baax a baax macha allah tey nag ñu seesoo suñ mooy école de lutte Balla Gaye di wax moom jàmbaar la ci école bi ndaanaan la ci école bi macha allah ndax boo xoolee euh, moo fi baax di ko kontaan wax yàlla yàlla guddal fan wi yàlla defal ko jàmm may ko macha allah ndax moom nee naa la suñu fierté la suñu papa la bu ñëwee ci école bi gis ko dañuy kontaan ndax jox nañu cër day kaf ñun di waxtaan ñun macha allah loolu lañ soxla loolu lañ soxla ci mag kon ñu ngi koy jaajëfal di ko kontaane merci beaucoup papa jërëjëf. Sam xam nga problème euh, école yi na ñun euh, dañu am uh-huh. cofeel mm-hmm. parce que dañu bëre ba bàyyi bëre mm-hmm, mm-hmm. top école bi man dama daan liggéey ci hôtel uh-huh. laa doon liggéey uh-huh, xamoo la bëri naa connaissance trop ci problème wàllu hôtellerie bëri na li ma xam xamoo la mais yoon mayuma pour may wax. xamoo la parce que dañ maa yar ci loolu. Mm-hmm. biñ may jox responsabilité boobu mm-hmm. ma yor ko. Mm-hmm. dañ maa téyeloo sama gémmiñ. comprendre nga. li nga xam ne nag moo nekk ci école bi mooy ñun dañuy yàgg forme ay xale. depuis bi Balla Gaye di débuté. xëj na am nañu jabar yor ay doom. am ay mbokk yoo ah. xam ne ñi ngi nekk à l'extérieur mm-hmm, mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñi jege nañ ñu mm-hmm. yaakaar nañu ne ñi ngi ci am adduna ak li ci biiram ak Balla Gaye mi gaañu wallahi lal azim wóor na Cheikh Sakhou billaahi wallahi wa tallaahi uh-huh. man day gisuma ko. ndeysaan <laughs> dëgg la. xamoo la. <laughs> Uh-huh. cofeel rek lañ ci am. Uh-huh. <laughs> waaw xale buñ ci gis ne ngay def loo xam ne problème mu ndëngal ndëngal. la jaral nañu ñu simmi sunu mbubu xeex ak yow. ndeysaan ne la lii bu ci dugg. man moom yàgg na ci problème yu mel noonu. dëgg la. Mhm. dem nañu ba ci problème wàllu politique. Mhm. dëgg la waaw yow moom bokkoo ci wàllu problème ma benn banditisme. mosuma mhm. cee bokk. ndeysaan bi maa moom bokkoon benn koñ. dëgg la man samay morom ñu ma bokkal génération yëpp amu ci kenn ku ma ci ñime. parce que yonent bi. dëgg la billaahi du questionné damaa damaa kii sama bopp. wala lenn dëgg la mais fulla laa mës a am. musuma jaay drogue. musuma tox yamba. musuma tox assis te amu ci lenn lu ma ump dëgg la waaw wallaay la asim su ma neexoon mën naa koy jaay dëgg la te xoolal mën naa am wéeruwaay boo xam wéeruwaay bu dëgg billaahi wallaahi wa tallaahi barke Cheikh na Abdou Khader Jeylaani ndeysaan wallaahi mm. borom tëri du ma jàpp ma ndeysaan macha allah mais loolu dafa nekkul loo xam ne dëgg la du sa yëf waaw du sa domaine macha allah dañ maa tàggat yar ma dëgg la vraiment may mhm. toog ak ñoo xam ne ñoo ma mhm. ëpp mhm. mentalité di ma yee ci àdduna te xeebu ma ci kenn ba ci samay moroomu ay doom dëgg la may toog di discuter ak ñoom ndeysaan waaw vraiment maa ngi jéggalu nag ndeysaan merci beaucoup papa jërëjëf di ñaan yàlla <laughs> yàlla def sutura allahumma yàlla def jàmm ci réew mi allahumma amin ah, vraiment li ga xam ne moom lañ dugg ci nguur gu bés gi waaw waaw yàlla yombal <laughs> lépp amin papa amin waay amin xale yu ndaw yi fi nekk nag léegi wala génération amin dem ba soppi leen ñu dem ba nekk ay cadre yoo xam ne daal mën a yor seen ndey ak seen i baay amiin jërëjëf luy problème mu àdduna nag mooy mm. respecté mm-hmm. say waajur parce que ku la jur sonn ci yow dëgg la war nga ju war nga war nga war ah, simi ah, am dawal yërmande ci moom man loolu rek laay conseillé kontaan nañ papa jërëjëf merci beaucoup kontaan nañ ci moom papa jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal kontaan nañ Sam laa ci àndaloon euh, moo nekk ci li nga xamante ne mooy caméra bi saa su nekk ayaa ngeen ciy àndal euh, mais dëgër musóor yaay xale yi Aïcha moom it mu ngi ca wet ga macha allah jigéen ju mën góor kontaan nañ la bu baax a baax jaajëfal nañ ñëpp kontaan nañ ci lépp di ba beneen yoon euh, ci beneen émission spéciale làmb jërë ngeen jëf